suñ borom da wax ci alquran wala nabluwannakum bi say minal khawfi wal joxi wa naqsin minal amwali wal anfusi wa samaraati wa basiri shabirin waxna itam wala nabluwannakum hatta naxlamal mujahidin minkum wa sabirin wa nablu akhbarakum man duma len luddul jamu jaamu yàlla waaw njam su xeebu so xamantene ngeureumal yàlla rek moy lima ñor da am bis nak ma duggu ben bis di di di di dem Touba magalu kasu Rajab bis bi mang ngi ko jëlee booru Farafeñe waaye bi ñëwee ba Pont Noiraux daal douane yi jàpp nañu bis bi euh, gis ci douze kilos yamba léegi safoor ba accusé ma ne maa ko ca dugal ba tax ñu téye ma juróom-ñetti weer ak fukki fan ak ñeent waaye foofee ñu ma tee laa ne lii de alxuraan moo koy leeral comme nee na maa ko moom te man yàlla mi bind jaam ñi xam na ne moom ma ko te li xaw ma ko comme ca daara laa ne woon nag dama dugg cim commerce rek ngir yaxantu lu ma yore sama njaboot ak samay waajur kon xaaral ma fas yéenee bindaat kaamil ndax laataa may jógee ca daara Serigne Souhaïbou bu bind naa fa ñaari kaamil kaamil bu njëkk ba ma jebal ko Serigne Saliou euh, Serigne Cheikh Awa Balla mu Serigne Fallou ñaareelu kaamil ba ma jéggal ko ma jébbal ko Serigne Saliou ca laa waxee waa Touba ne nañu ma seet si te indaaleel ma këyit ak xalima ak daa foofee laa binde ñaari kaamil ci diirub juróom-ñetti weer ak fukki fan ak ñeent bi ma génne dem ba ca Cheikh Mamadou Mountakha nag mu ñaana ma ne ma na nga rafet njortu tey sant yàlla foo toll te xam ne am nga taw tawfeex ginnaaw bi nag lañ ma neexale 2 millions ak ay terrain ba ma ngi tabax ay daara fim tolni lima bëgg dal moy liggéeyal suñu borom ci alcorane karim bëgg na dal mboolem kilifa diine yi manam khalifa sen yi kenn ku ne ma liggéeyal sa borom ci sa jëm Serigne mbay si Mansour mi nga xamantene moy kilifa kilifa waa Tiwaawoon sax amna yene bindu bindu kamil ba mu soti ma dem jox ko ko ngir jëmi serigne Touba ndax digënté sidi adji malik ak serigne Touba gaaw ak dimanche la te ñom ñëpp dañuy woté l'islam kon nak lépp luma man ci lu rafet dina ko sekk ak wa ndiasan sekk ko wa tiawon sekk ko wa Ceneba sekk ko wa Pire lépp lu may def nag maa ngi koy def maa ngi koy ngir jëmmi sëñ Touba ñu ngi ñaanal télé bii di Al Malikia TV maa ngi koy seetaan seen programme bi yàlla na ko yàlla barkeel waaw Sidi Hadji Malick moom lépp mbay taw tawfeex la ndax burdu bi nga xamante ne moom la waati waawoon di daje ah, di ko burdoo bu gàmmu gi jubsee bama ma nekk bir biir prison ba ca la ca mokale lu bari amin tasakuri jiranin bisi salamin masata dam han jaramin mukhlatin bidami am habati rihu min khay kasimatin waaw madal barxa fi salmay min idami fama li hayneka in khultak fu fahamata wa ma li khalbika in xulta sax fiyahimi ayansabu sabu anal hubamun katimun ma bayna mun sajimin minhu wa multarimi Serigne Touba da da da danoo wax nun taalibe yi ne fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wala nehida sawaw intama ila al jilani aw intama li ahmada tijani aw li siwahuma min al akhtabi iskuluhum xatan ala sawabi Serigne Touba nee na foo jublu moo xam yaa ngi ci yoonu Cheikh Ahmadou Tidiane wala yaa nga ci Cheikh Abdoul Khadir Jeylaan wala yaa ngi ci fu mu mën di doon foo ci jublu rek te góorgóorlu rek suñ borom dana la àggale ci yàlla maanaam da nga àgg ci suñ borom tabaraka wa taala yàlla nañu yàlla defal jàmm te suñu ndaje mii yàlla boole ko ci ña nga xamante ne ñoom lay fay ci aljana ndax mboolem ñi nar a texe ëllëg ëllëg suñu borom tabarak wa taala saa bu ñu wootee lu baax da leen di xéer ngir ñu ngir ñu jublu ca